rafetlu seen àndin ak la chaîne des leaders Senbuzz TV di commencé suñuy wax kàddu gi yàlla wax ci alquran ni inna ajalallahi ida jaa la yuaxaru law kuntum taalamuuna wax booba tekkiwul lu dul yàlla ne dër bi nga xamee ni ci la appal bakkan bi bu app bi bu xasee ba jot du ma ci retard lu toll ni tarfatul ay nii askan wi xëyee tey mbetteel ak naqar bu métti dal ci seen kaw rawatina groupe des médias di génn ak àdduna ki nga xamee ni mooy soxna Momy Seck bi nga xamee ni moo nekkoon soxna wu ki nga xamee ni mooy borom kër bi di groupe des médias di li waral seen bés ñëw fii ngir euh, euh, toog kenn ci njabootam kenn ci ay xaritam kenn koo xam ni euh, xarit la ci moom en dehors de liggéey bi nga xamee ni ci la ñu bokk muy oustaz Mouhamed Mbaye xanaa rek pour commencer yaa oustaz dañuy am mbégte si jotaay bi bëggee wuñu ko woon nii waaye mënul ñàkk quand même pour ñu commencer ñu jaale la massawu la bu baax a baax kenn ci ki nga xamee ni génn na àdduna tey muy Mimi Seck te bokkoon ci yéen groupe des médias tabaarakallaahu congaan maa ngi laa nuyu yow itam di la ziyaara mhm. sa liggéey bu rafet ak sa question yu am qualité yi ngay laaj ngir àdduna ñëpp jariñu ci waaye di nuyu ñi nga àndal ñëpp rawatina ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp ci seen buzz mhm. ñaan yàlla lu nuy wax yàlla na doon njariñ mhm. di la massawu yow itam ndax damay faral di dégg tàggekat yi di wax ni ñu ngi am naqar ak ëpp naa def julli jullit du am naqar waaye dina am tiis ndax adduniyaa sijnul mu'min wa jannatul kaafir yonente bi nee aduna mooy kasoy jullit ñi di àjjana yéefar kon yaakaar naa ni jullit bu génnee kaso nekkatul naqar tiis lay doon ngir miineel moo metti ndax bi yonent bi génnee àdduna waa suuf ñu ngay tiisu mm-hmm. waaye waa aljana ñu ngi kontaan yaa xamti ruuxam ñëw innal jinaana ala tazini yow ma qudumi moo tax maa ngi jaale ñëpp kooku lee nga xamante ni njortu naa ci yàlla bu dee mooy tax nit dem aljana dina dem bu dee sutura mooy tax nit dem aljana dina dem bu dee lewet mooy tax nit dem aljana dina dem mhm. bu dee làq ngërëmal jëkkër mooy tax nit dem aljana kon dina dem ñu ngi koy ñaanal muumi yàlla na bokk ca suknaahumu bi ala iliyina mujawirina xayra mursalin koy wax léegi yaa oustaz euh, lan nga ñu mën a wax d'autant plus que bokk na ci ñenn wala ci kenn ki nga xam ne ni bokkoon ci liy doxal groupe des médias nga miinoon ko euh, mu nekkoon sa wëllëre en dox de aussi li nga xamee ne liggéey bi doon na ci participer. mais moom moom mooy des médias ndax moo mhm. nekkoon directrice bi. Mhm. fànn yi fi nekk yëpp muy Tribune muy wàllu Zik FM muy wàllu télé bi lépp moom mi moo nekkoon directrice bi damay wax ne doy na natt ñu ne ñaareel la. ñaareel boo xamante ne lépp télé bi moo ko yor war ngaa xam ne am na fu mu féete borom këram ci confiance am na itam fu mu tolloon borom këram mais gis nga congaan gisaguma ci àdduna jigéen bopp sutura moom yi mhm. yàlla seede na ko gisuma ci àdduna jigéen bu gën a dal muumi moo tax gis nga la ñu naan doom jo ndey ja nu meer jaaga meer jaaga mës ngaa dégg coow lu am ba nga dégg ko ci bu doon biir këram la coow li sax doo ko ci dégg yaakaar naa coow yi ngay mujjee dégg yëpp doo ci dégg turam mm-hmm. def ci yar doomam xoolal ñett yi nga xamante ni doy na muumi war a fés ci média déggoo ko ci magi Wally Seck doy na mu feeñ ci média mm-hmm. doomu Thione Seck doy na mu feeñ ci média soxna yi Bougane Gueye Dany doy na mu feeñ ci média mais dafa làqu rek bokk ci maktuum yi ñu nëbb seen cër lewet bu lay may dara sax nit du ko yëg tey euh, bi ma nekkee Njaasaan quatre heures et quelques du matin ñu woo ma ni ma rek moom mi nelaw na rek dama am tension ci saa si subhanallah ma ma ma ma jaxasoo ba sama tànk di lox mm. ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne cëy cëy malaakal moo jël nga ko ne waaye tiim nga jigéen ju yaru tiim nga jigéen ju dal bu fekkente ni li yonent bi waxoon ni man satara musliman satarahu llaahu ko suturaal jullit yàlla suturaal la billaahi yàlla dina ko suturaal mm-hmm. bu fekkente ni li yonent bi waxoon ni man farraja an muslimin kurbatan mm-hmm. farraja llaahu lahu min kurabaati yawma alqiyaama yàlla dina ko fajal ba muy fajle moom ndax xam naa loolu ci moom est-ce que uh-huh. alors nga mi noonu ko lan nga ñu mën a wax ci lu la gënoon a impressionné lu la gënoon a marqué ci jëmm ki nga xam ne mooy Momy Seck mu jiite woon euh, groupe bi waaye loolu doyul wax nga ko mu nekkoon nit koo xam ni amoon na raison yu nekk ngir ñu xam ko terewul dafa nëbboon boppam. boo juumee boo juumee ngay xam cëram. Mm-hmm. moom mi balaa ngay xam mbaaxam congaan dëggantaan nga juum benn jour mer naa. Mm-hmm. génn grand ci koor gi xam nga grand plateau ni mu toll. mënoo mm-hmm. wax grand plateau te doo tudd Mouhamed Mbaye que ñëpp dinañu xaar sama nuyoo wala ñëpp dinañu xaar ma taxaw tàgg yonent bi ma dem ñibbi mu woo téléphone. daf maa njëkk li ma li ma gën a garaaw ci est ce que xam nga ni moom mi du tëb tëb woo daf lay message làkk la français ne est-ce que mën naa la woo. boo ne ko wii rek mu def appel. ni ma oustaz dama gis sànq euh, gisaatuma la ci émission bi ma laaj Serif mu ni ma dangaa ngaa dem. Mhm. lan moo tax ma ne ko muumi nangam bi ak lii ak lii moo tax mu ne ma oustaz yow seen TV nekkoo ko fa ku ñuy fay weer da nga nekk comme ça ci seen TV nga bokk. Mhm. yow yow kenn du wax seen TV te tudd la. am na yoo xam ne del sauvé émission bi. Mhm. bul xool tàngoor bi fi nga toll. bu jotagul ci dara. Mhm. mu ne ma dellul démb comme bi nga ko soxlaa. ni nga nekkoon ni mu nekkoon itte pour nga liggéey ci. mu ne ma delluwaatal ci loolu. Mhm. te nga xamante ni yow yow yow yow yow sama xarit nga Mouhamed. bu bu ma bu ma sax du la dégg ci yenn yi. Mhm. xam nga dammat ma ma ne ko maa ngi jéggalu amul benn problème dootul amati. dem naa ba grand plateau bu dee cinq personnes ñoo war a ñëw. ñu juum six ñëw damay obligé may sans place jox keneen mu toog ñi a ñaari yoon damay wàcc rek gis benn euh, genre paquet Moussa ni ma muumi moo ko fi bàyyi. Mhm. damay xool gis ci ñetti xeetu jees yu bokkul. ba pare mu jël enveloppe roof ci biir ni ma ñawloo ko boo kooy du jël téléphone danaan la rek na yem suñu diggante parce que dama faa njaboot di ma ko def yoon yoon yenn saa yi nga ñëw fekk cag-cag bi yegg témoignage boobu même Cheikh Sarr aussi moom la def ci moom mu mel ni kon ku fonkoon njaboot gii nga xam ni mu ngi muumi ni muy bàyyee xel xam nga man kañ laa xam muumi mm. daaw ta def seen TV cinq ans xanaa kon yaru passé téléphone la ñuy wax message whatsapp la ñuy wax daaw waxuma ren nii daaw ci koor gi ñu indi ay ndogu ma yéeg ci kaw romb di wax ak Fatou Abdou mun ma yow ni ngay rombee sa patron. Mhm. ma ne Fatou Abdou kii kan la mun ma kii mooy muumi ma arriéraat ma ne ko yaa yaru yaru bu nu wax ci yow rek dëgg la yàlla na la yàlla sàmm. bi ci des yaayam du ñàkk dina ma seetaan dama dugg see kër yaayam fekk mu toog ci benn ruq toog. ma dugg ci biir maire di ma waaye yow xanaa gisoo muumi ma ne ko muumi dajewuñ mu ne ma muumi ci saal bi kay ma ñëw fekk muumi yaayam ci boppam ni ma gis nga fi mu toog du fa jug nax yaroom. est-ce ni ma nii la mel ma ne ko teraanga rek. tedd nga rek waaye xëy na yàlla dina bëgg jaamam ba xëccal ko boppam mu ñëw ci moom mhm. parce que yonent bi mënoon naa dund lépp téeméeri at mhm. mais lu tax mu dund soixante-trois ans mhm. parce que yàlla moo soxla ni sama waaji kat na mën naa ko faw mu ñëw benn yoon jege si ma ndax bëggatuma lu ko naqari maa wa danga kër bu koo maa xalaa waaye wa comme walal axiratu nag xayrun laka minal ula faw nga daw dem sallallahu alayhi wa sallam alors xam nga euh, mbetteel la waaye comme yéen jàngkat yi ni ngeen koy boro nag yu demee noonu ndax yéen ñi nekkoon ci kër gi euh, yëgoon ngeen xibaar boobu. xam nga nit nag dina feebar. Mm-hmm. man yëgoon naa feebaram yëgoon naa feebar baa ngi avancé li ma lay wax nii matul de semaines ma jot vocal am voix bi changé lool ba bay traîner. Mm-hmm. boobu maa ngi am ku ma mm-hmm. bi mu dégloo vocal bi rek dafa ni oh moom feebar na. fekk juste may wax ak moom ci benn sponsor. Mhm. ki ma ci doon xulool ni ko demal nga gis Momy def na ma oustaz Momy dafa feebar. mais fooguma woon ni. Mhm. xam naa ne dafa feebar mais comme xale damay jàpp daf feebar. Mhm. feebar bi li ma koy gën a tegeen saa yi dama naan xam naa daa tollu diggante. est-ce que comprendre nga ci jigéen. ci day tollu diggante. dafa feebar nangam nangam mais bi ma xëyee nag tey nekk njaasaan ñu ne ma Momy nelaw na nag allaaj sama tànk yi jaxasoo na. dama ni oh. chë të të të ma ñeewante ci saa si bugaan mhm. parce que xam naa moom mi ko toll mhm. xam naa moom mi ko teg xam naa moom mi ko soppee moom dafa bëgg bugaan ba li may wax sànq ci benn interview nee na li ma naqari mooy li bugaan politique man ko nax lu tax parce que wërsëgam la war na cee ne daan na wax ba ñu moomu politique mais mhm. politique dafa am saaga dafa xaste te bëgguma ko ko saaga bëgguma ko ko xas loolu rek moo tax politique neexuma kon yaakaar naa am na fu mu tegoon borom këram fu kawe. Mhm. fu rëy tey jii nga xool mu nekk bras droit am nekk complice tam nekk xaritam congaan est-ce que yaa ngi xalaat doom yi nu ñu miinee woon seen ndey ja euh, mu mi dafa bokk ci yaay yi am jot ci doom. Mhm. nga xëy tey dëj bi xale yi di daw di dem seen papa naan ko am sunu yaay. du leen xam lu mu leen di tontu xale yi di daw di dugg seen néeg yaay te du leen gis wala te ay doomi ndaw la yor ñuy wër waraan ci biir kër gi di xool fan la seen nday féete mhm. wala ñuy toog ñaari fan ñetti fan duñ gis seen yaay yëg-yëg yooyu moo may du ma wax moo may naqari waaye muy tiis ci sama xol mhm. dama xam ne buggaan dafa gaaw a jooy te dafa bëgg njaboot dafa gaaw a jooy mhm. buggaan dafa bëgg njaboot buggaan xëy rek tuddul muumi allahu yaa ngi xalaat li ma lay wax xëy rek tuddul muumi wala xëy rek gisul muumi nga xam ni yàlla wallaahu yaxkumu laa muaqiba li xukmihi wa huwa sariul xisaab mu ngi noonu daal. macha allah muy oustaz Mouhamed Mbaye yow oustaz euh, ndax jotul vraiment nit ñi gën a delloo seen xel ci bis bi dafa mel ni tamit xëy na comme ni ko jàngkat yi waxee ni na Ali ibn Abi Talib doon wax doy na ci waare rek ñu ne bakkanu di wàññeeku na. dafa mel ni yàqute jamono ak yàqante yi waxante yu ñaaw lu yàggul dara gis nga ay wax yu amoon ban ko ci doon tudd gisoo ni bis bi war na mën a tax nit ñi gën a delloo seen xel ci dee. wattaqu yawman turjauna fihi ilallahi suma tawaffa kullu nafsin ma kasabat hum la yazlamun mm. congaan nit ñi nañuy bàyyi xel dee sama góor gi ci Tiwaawan dafa ni woon ala axiral anfaasi dernier noyyi bi ngeen noyyi di wuyu ji seen borom mm. daawim dee leen saxoo bi fikri yi di ko xalaat si daaj Malick nee na ala axiral anfaas ay waay sa dernier noyyi bi ngay noyyi teen nee na daawim saxool bi fikri yi di ko xalaat mm-hmm. mu ni zakiyul xijaa borom xel bu ñaw yéhi bu war na koo tiital firaax bis bi muy dem lépp loo gis mu bees rek ràpp na am na yére boo xam ne bi nga ko jëndee da doxal nga ba ci yàgg nga mujj ko def morso feberekaay mm-hmm. mm-hmm. te yaa ko jëndoon ci njëggu seer li mën naa xëy bés maye ko wala ma koy fóot di ko fóot ba dessin bi wàññeeku congaan lu nit di xëcc nit ëppale woon na ko dem bàyyi ko fi ñaata nit la ñu miraasagul ba tey miraas baa ngi tribunal ñu yéeg di wàcc ba tey miraasaguñ ko ñaata nit ñoo tëdd ci lalu hôpital yor lu ëpp li nga yor damay wax ni ñaari ngi nii yoo xam ne ci la la yàllay wan ni kenn du moom. 32 mm-hmm. ans mu roof la ci benn bëñ buy metti mu tere laa nelaw nga xam ne yàlla xajul ci yow. fukki baaraam nekk sa loxo yi mu roof la ci benn loxo bu bëy mm-hmm. nga yenu ko mel ni ku yor liir woon nga xam ne yàlla xajul ci kenn mm-hmm. falaa tuzaku anfusakum wa huwa a'lamu bi man ittaqa waaye gis nga dem dund na ci personnalité yaru na ci personnalité màgg na ci personnalité. Mhm. gérer na borom këram ci personnalité këram la génnee àdduna dee ci personnalité yàlla nañ ko denc ci personnalité guddik tey di guddik alxames yàlla na gisee ak yonent yàlla Muhammad ca barzaq ci personnalité. amiin yaa rabbi alors wax nga ko këram la génnee àdduna mais yaa oustaz bëgg naa un petit comme yaa ngi ci groupe bi nekkoon njaboot ci moom mën nga ñu ci leeral tuuti ñeneen ngi naan feebar bi yàgg na sonaloon na ko ñii daa wax France la génnee àdduna ak yu noonu ay waxtu yu mujjëm lan nga ñu mën a wax ci information yi nga jot am këram la génnee àdduna wala hôpital ak wala yu si aju. waaw këram. Mhm. la génnee àdduna ci information bi mu mujjee am Mm-hmm. parce que ki ma woo dafa ne ma ñu ngi nii cité kër góor gi. Mm-hmm. man ko abon ah, ànd mu ne ma mu ngi ci kër gi. Mm-hmm. gisagu ma bugaan ma ko d'accord mu ne ma dañ koy yóbbu euh, la ma wax. ma ko ndaysaan yaakaar naa ku ñu ne dañ ko yóbbu cardio nangam kon xam nga ni këram la génnee. yenn saa yi congaan nit dina la jege dee te doo ko. lu leer parce que jaxasoo nga congaan déeri muy dëgg. parce que dina la. <coughs> dina la teg foo xam ni pression bi doo ko attan. ba da ngay mujj doonaat xale mais ñu naan bu doon bu génnoon àdduna France est-ce que kon dinañ ko mën a denc mm-hmm. Sénégal xaw ma lu fi yeex waaye du information absolument France mënoo génn àdduna mm-hmm. trois heures du matin ñu war koo rob seize heures ban vol la jël xanaa li jëntuñu ay këyitam mm-hmm. mais fii la génnee àdduna ci feebar bu yàlla teg ci kawam ci li ma la sànq ci dignité moom mi musul wax ne daa feebar musu koo waxe musu koo doxe ñu koy yëg ñu baari ay forna ci weewu bëy ban bëy lañ ko foree mënuñoo mm. bàyyi bëy yu ñu noppalu tuumaal nañu leen ndax mënuñoo wax ban weewu bay mm. feebar na ci personnalité te itamit fakkam min saxiixin mm. maata bi xayri xillatin wa kam min saqiimin xaasa xiinan min a dëhri bari na ko feebar ban koy jooyee mu dund waaye bari na koo xamante ne daa dox léegi romb génn àdduna ki yor feebar malaaka bi yor feebar ak malaaka bi yor dee duñu benn macha allah alors ci lu yàggul dara am xew-xew bu amoon rakkam doon wut soxna wala doon jël soxna euh, ñëwul ñu bari ci ñenn ñi wax ci réseaux sociaux yooyu di ko sikkal naan war na ñëw xamuñ woon ni feebar la yow Oustaz lan lañ war a mën a jàngatee ci di tuumaal nit ci di ko gàkkal ci di ko waxal lu ñaaw ndekk ngant bi di feebar mool moom la nekkee woon ba génnee àdduna loolu lan lañ ci war a mën a jàngatee. congaan li ñu ci mën a jàngee mooy mbaa yëg nga ni ku tuumaal gor ci li ko tuumaale balaa yowmal qiyaam yàlla dina la ci nattu ba àdduna yëpp teg seen bët. Hmm. congaan man bu ma déggee ay nit dañ leen di fay pour ñu yàqu der ñu yàq der ñaf leen rek lay bëgg ñàkk jom. paaseetul ñu lay fay pour nga xas gor. wax naa ko bu yàggul ñu ñu Seex Yirim. Hmm. am na ndaw sum tàqalikool ñu ci wax naan nangam ak nanga ak nangam man leen Cheikh Yérim Seck bu fekkee ni cofeel bi mu wax ci yonent bi dëgg la du yàq der mhm. parce que man fu ñu daje mu jël cent mille francs wala cent mille ko mhm. Mhm. cent mille ni ma dama la koo jox addee yonent bi te bu ñu dajawaatee ma joxaat la ko te itamit soxnaam bi mu divorcé ba dégguma mu wax gis nga nit mën nga koo bañ a xam mais ngay xool ndaw si di nga xam ni kooku yaru la sëyu jàmbur biñ koy takk joxuñu la can la doo tëj génn ci sa làmmeñ bàyyi sëyu jàmbur mais di ngawti ngawtee vingt quatre heures si vingt quatre am naa cas mhm. cas ban heure vingt une heure laa koy traité yow yaa mais lu ma la wax léegi yàlla nee na bàyyi leen di fëgg seen dënd maa xam ki ma ragal mhm. benn góor dafa ni eh, dafay sukuraat feebar li mu yoroon ci wàllu yàllaam woo ñeenti taalibe yi mu yor mhm. ni leen dem leen ngeen xool ku gën a doye di ngeen mar ku ko njëkk def ci yéen boo ñëwee ma jox la li ma yor ci wilaaya am kenn ku dem romb dof bi ku di mar ba mu des kenn muy dox ci yàgg mu xalaat ni waa man jaamu yàlla yii xaw ma lu yàlla def ci ñoom est ce que nekkuñu ay way luy nëbbatu ma leen di xool naan dañoo di kon man kenn gënumaa doyoo di si ci góor gi am ku ne fa mar naa tànku dof am ku ne mar naa tànku jigéen ju wéré di mu ne kenn ki loo def mu ne ko damaa xalaat ni li yàlla bind sans bopp laa ci gën a xam comme man mii di xool jaamu yàlla yi ci ñoom doyoo di kenn gënumaa doyoo di mun ko yow mi yaay nitu yàlla gis nga congaan nit ki xam na ii bi boppam kon na natt boppam bàyyi di xeeb Mm-hmm. ñaata nit ñoo fi ñoo ñoo ñoo fi xas nit ci génne ay awraam nit xëyul gis génneel boppam basu boppam publiquement mm-hmm. dëgg la parce que yàlla inna laaha hayyun sittirun mm-hmm. yàlla ku bari sutura la ku am kersa la mu ngi ci alxuraan waaw bu yàlla amee kersa am sutura te bind la yow xanaa bu doon natt la war nga cee teggi te man satara muslim man ku suturaal jullit satarahu llahu yàlla suturaal la in lam yastaxi nag boo amul kersa yonente bi nee na fas naa ma shi te defal lu la neex mhm. waaye bu sukuraat jotee nga xam ne loo ñàkk kersa yàlla dina ko fayeku ci yow macha allah yow Oustaz fi may jeexalee en une minute lan lañ war a mën a jàngatee wala lañ la mbokk yi war a mën a saxoo euh, ba di fàttaliku dee gën a rafetal aussi suñu doxalin ak euh, société bi nga xamee ne ci la ñuy dund nit saa yu defee lu ñaaw mbaa mu lu ñaaw ni nit ñi mel ñi noo ko neexul hmm. ki génn àdduna jàngalewul demul waaju ñu ko denc àdduna yomal xiyaam lañ jëm ñaata nit ñoo fi gaañu bu yàggul ñu am tur mhm. tey fàtte nañ leen ñu ngi ci leneen ak leneen yàlla buur bu maandu la de congaan mhm. dëkk bu ne la nga gën a bëgg moom la lay may boo demoon Chine liggéey rek la ñu bëgg yàlla da leen di may loolu Sénégal détail la bëgg Mm-hmm. ak challenge saa yu yàlla xëy may ñu lun dataay ak lun challenge yàlla moom saa yu xëy mënuñu am challenge a ngoog loolu lañ bëgg ñaata tiktokeur ñoo fi nekk di xaar kun challenge jigéen ju ju solo yére yu bon ñu toppandoo ko ñaata woy lu naqari ñu toppandoo ko mm. ñaata kuy takk soxna wax waxu moo ñu toppandoo ko ñaata euh, mbëru làmb mooy génn def benn commentaire yàlla ni comme loolu ngeen bëgg ma dimbali leen ci fexe ba ngeen am ay iPhone yu leer su ngeen xëy dinaa fexe ba chinois yi defaral leen ay làmp lampe sinapeur yi bu ngeen xëyee sinap ba ngoon bu ngeen gañe bi te bu ngeen xëyaate ma indilaat leen lu bees rek ngeen di taayaat macha allah mbay kon nag euh, nañu yaru bi ci des suñu kilifa yi ñu am amul ñu dul ñoom mhm. ñu ormal leen jox leen cër xam li nu doon lan la mhm. ndax nekk jaam moo nekk taalibe moo gën a metti nekk jaam mhm. jaam dañ koo forcé di koy liggéey la waaye demeewul coobareem taalibe moo tànnal boppam jël engagé wu boppam ñëw ni sëriñ bi la wax d'accord naa ci beneen bi may daanale mooy kër sëriñ si taalibe yi ku ci wax seytaane nga mënoo yaakaar sëriñ bi sa morom yaakaar beneen sëriñ lu sa sëriñ wax dëgg la boo tourné attaqué sëriñu jàmbur te yow ki ngay attaqué ak ki nga faral ñoo bokk benn maam. Mhm. kon yaay naa féq bi xeexu ñaari jaan. Mhm. baaraam du leen àtte. xam nga lu ci war ci diggante ñaari sëriñ wilaaye bi dox seen diggante kenn ku nekk mën nga gaañ sa morom munta ne ndax ñoo bokk maam. Mhm. kon nañu suturaalante nañu ormaalante ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa